seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang bisimila ba tey ji yéenekaay yi ci mbiru xalifa Sall rek la ñuy xëyee mu riigu ci xëtu yéenekaay yépp nag ci xët bu njëkk ba yéenekaay bi di Vox Populi dañu wax nan la xalifa Sall di dundee ci biir kasob Rebeuss yenekaay bi di Vox Populi ne fi ñu denc kii di xalifa Sall moo ne moo lañu wooyee quartier VIP ci prison centrale bu Dakar bonte ñoom ñi ngi wax ne kii di xalifa sàll ma nga nekk ci chambre bi nga xam ne moom la Karim Wade nekkoon l'observateur na ko déedéet dañ ko isolé kay ci benn cellule moom bu nu aménagé yéen kaay bii di laas na xalifa sàll dañ ko isolé Bamba Fall lañ jox cellule bi Karim Wade nekkoon Vox Populi ne xalifa sàll ba mu duggee ci biir kaso Rebeuss ba ko soxnaam seet see lu mu ko njëkk laaj def na ko jox ma kaamilu alxuraan ak timit benn kurus ak timit tapi julleekaay yi ngir rek ma mën a jaamu bu baax a baax ndax nag fii si kaso ak ci bàmmeel foofa dem fekk fa kul a gën démb daje na ak ay avocat am ak directeur de cabinet am yéen kaay bi la turbine ne waaw lan mooy ëllëgu xalifa sàll ci wàllu politique jar naa laaj de Benno Bokk Yaakaar kontaan lool sarxolle Vox Populi moo ñu ko waax gën a dugal nag Khalifa Sall ne liñ koy tuumaal yépp moo ko def waaye loolu du gis-gisu association maire yi nekk ci àdduna bi yépp wërngal kàpp ndax nag ñoom ña ngay interpeller Macky Sall ak it di waax fi mu nekk nii ni ñuy jàppale kii di maire bu ndakaaru di xalifa Sall loolu nag maire lool lool Mor Ngom ba mu xas leen ci biir yéenekaay bii nga xam ne moo di laas waaye dossier xalifa Sall bi waxagul lépp lu ci nekk ndax nag ñaari comptable yi di Ibrahima Touré ak Mamadou Omar Bokum bind na lettre bu saf sàpp jébbal ko doyen des juges d'instruction ne ko lépp lu parquet wax dara du ci dëgg dara ay kàcc neen la yéenekaay bi l'Observateur moo ñu mel ci biir yéenekaay bi de la Tribune pour la défense de la République ne ñoom ñi ngi wéy di jàppale kii di Khalifa Sall na leer ci bopp ñëpp Mamadou de Decroix ne Macky Sall moo gën a yées ci président yu Sénégal mësa am fii ci réewum Sénégal ci biir yéenekaay bi nga xam ne moo di laas nee na Macky Sall na wax am na rapport OFNAC boo xam ne def ci loxoor yi nga xam ne moom la frère am di Aliou Sall nekkee dëkkee ko saa su ne of nag weer na ko waaye dafa jël rapport boobu gas ba mu xóot suul enquête na man damaa jommi ci nguurug Macky sàll waaye yéen seetloo leen lenn ba mu nekkee ci bopp nguur gi ba léegi tëj ak tëj kaso rek tëj kaso rek te li jaaxal ñëpp nag mooy ñim tëj ñëpp ñoo bokk àtte ñoom ñëpp rek dañoo bokkul ak moom gis-gis doon ay opposants 2012 ba léegi lu mu fi tëj ci ay nit ñëpp. ay opposant ram mm, ci PDS la songu ba tas ko tasar jamono yi nag coalition taxawu ndakaaru la fas yéene songu bu baax a baax yéen kaay bi la quotidien nag xeex bi kay nag fu dëgg na yax équilibré wul Macky Sall na ñeme jàkkaarloog ay opposant am xeex ak ñoom rek ci wàllu démocratie ci biir yéen bi de la tribune ñoo amal laaj waaw Serigne Moustapha nan la fas yéene taxawee ci mbiru Khalifa Sall président cour des comptes ci biir yéen kaay bi di laas ne amul benn président bu leen mën a influencer yéenekaay bi di Le Quotidien ne Aïda Mbodj day tas ak waa parti démocratique sénégalais ndax nag mouvement am dafa fas yéene dem moom kese ci biir élection législative yii. Macky Sall ma nga tourné ca Fouta yéen kaay bi laas ne village nataalam fa mu fekk baax juddoo fa ay maamam fekk fa baax juddoo fa du ndulumaa ji dugg fa te moo ne de mi fa tabax kër gu rëy rëy bànneexu lool Farba Ngom wóolu boppam fëgg dënnam ne ca Fouta 96 pour cent lañ fas yéene gagné li di yi Macky na ko ëpp na nañ ko def 90 pour cent rek 10 pour cent yi ñu def ko sarax ngir yàlla jërë ngeen jëf si déglu ñu leen dëddee soo jëm seen site dakar